jërëjëf xam nga euh, d'abord ñu ngi gërëm euh, président de la république moom mi nga xam ni bi ko ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla waxee ni am nañ déficit jàngalekat maanaam système bi manqué na ay jàngalekat ndax euh, at at mu nekk ñu tëj ay classe ndax amuñu jàngalekat mu nangu accordé ñu ñu recruter juróomi junni jàngalekat loolu day fekk si benn recrutement 3700 Euh, ñetti junni ak juróom-ñaar téeméeri jënd jàngalekat yoo xam ni concours lañu ñu jaare ñu ngi CRFP ñu leen di former donc muy nombre bu am solo boo xam ne suñ ko dugalee système bi ah dina permettre ñu wàññi li ñuy wax pédagogie des grands groupes maanaam def ay classe double flux wala ay classe euh, multigrade ah léegi nag bi ñuy yàlla dogalee loolu am euh, direction ressources humaines ak SIMEN liggéey nañu ba concours bi fu mu war a jaar yëpp jaar na fa Sénégal yi bu bëggoon a bokk bokk nga ah te ku ci respecté critères yi présélectionnel après ñu def sélection waaw ah, bi ñu defee sélection ba noppi nag avant sélection bi waxtaan nañu ci critères yooyu ah, ak ak partenaires yi maanaam syndicats yeeg euh, organisation société civile ñuy bokk ci ñu jënd affaire njàng mi waaye it parents d'élèves bi ba d'accord ci critères yi ñu doxal léegi nag. Euh, yegg ci cëppandaw gi jël nañu ci wàllu préscolaire euh, élémentaire ak daara lu toll ci cinq cinquante jàngalekat jël ci moyen secondaire bi 1450 jàngalekat ci biir ci biir loolu dinañ ci noté 1820 jàng jàngalekat yoo xam ne déjà am nañu euh, diplôme professionnel wala diplôme lié à à l'enseignement master d'enseignement wala CAP wala CAP wala KS wala KS wala demee noonu waaye it xam nga dafa am lu ñuy wax inclu inclusion euh, parce que laago warul xañ nit ay droit am ba tax na ci biir yi nga ci gis euh, ñaar fukk ak euh, juróom-ñaar ci ci jàngalekat yoo xamante ni bii dañoo amee laago maanaam handicap physique maanaam loo ko waa tànk wala yu demee non ah waye yitt ci biir dañ ci gis euh juróomi juróomi jàngalekat yoo xam ni euh, yalla dafa muur sen bët waye nak remplir nañ koy téré ñooñu tamit jël nañ leen ci biir xam nga amone na problème bu yagg bu fi am depuis 2013 moy li ñu wax sortant euh fast promotion payante 2013 lu ne def nañ ko fi ay grève de la faim ndaysan am na aussi sortant CNFC yi ñoom tamit xeex nañ xeex bu metti pour ñu recruter leen am na seen problème seen ñoom seen problème seen diplôme donc fonction publique euh, homologue homologué wu ko donc ñooñu aussi moom ñëpp dugal nañ leen ci biir recrutement bi yi problème boobu aussi nekk na sunu ginnaaw.